Lamp Mbacke moom Serigne Moustapha moom Cheikh Mahamadul Bachir kenn ku ne xam na taxawaayam ak jëfam ak njàmbaaram ci àdduna waaye rawatina fee ca Saalum nga xam ne fa la féete waaye rawatina ci dëkk boobee ñu naan Kër ma Madiabel ndax kenn ku ne xam na ne amoon na ndigal ci waajuram di Serigne Touba mun taxa ngir jumaa joo xam ne daf ko liggéey foofee ca Kër ma Madiabel kenn ku ne xam na ne jumaa joojee ñi ñi ngi ko waroon ubbi le 8 janvier jii. incha allah rabbi waaye waajuram di sëriñ waa sëriñ Muntaxa daf ko wooluwaat bi mu ko fàttalee bis bi mu jàppoon ne bis bi ak waaye daf ko wax ne faw dañ koy randal ndax moom mii di sëriñ làmp ay mbiram moom sëriñ bi rek moo ko ci doy ba tax na sëriñ bi randal na bis boobee di ubbit ak jumaa ji tombeek juróomi fan ci weeru février incha allah rabbi loolu moo waral jataay bi ne ko ñëpp déggandoo waaye nag moom sëriñ làmp